salaamaaleykum wa rahmatullah soppe yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen télévision Tektal TV ñu dikk ak yéen ci naafila bés bi guddi ñeenteel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakan rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ñetti yoon des na ko bindal tuyaabay jaamu yàlla ak junni nit te des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon jullee soppe xarit yi ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay deru ci xuratu bu Serigne Souhaïbou Mbacké passé, page 142.